Euh, man Bassirou kan laa tudd nekk euh, le président du comité d'initiative bi nga xam ne si moo war a préparer l'assemblée générale constitutive des photographes de Louga formation bi formé nañ ñu ci technique de prise de vue montage vidéo donc euh, su bay boo mañ la rek ça nous a permis ñu jugee ci cadre informel pour teg suñu tànk ci cadre professionnel waaw mais tey après cette formation aussi ñoo ngi euh, lancer un appel aux autorités de cette ville que ce soit le maire ak les élus le conseil départemental ak ñëpp rek pour que ñu xam ni les photographes ñi ngi fi ñu bàyyi ñu xel nous avons comme projet de mettre en place une maison de production mais loolu lépp nag balaa ñu ciy wax il faut ñu wax ci situation bi nga xam si moom la photographie dundee parce que Covid 19 ba mu duggee Sénégal ba tey voilà huit mois photographie ñu ko njëkk a sentir parce que bu ne nee arrêté leen xew yi photographie ñoo fa nekk donc voilà huit mois yoo xam ne si photographie vraiment sonn nañu ñuy wax ni l' du Sénégal na jàppale. les photographes mais jàppale le secteur de l' artisanat voilà huit mois yoo nga xam daal ñu ngi toog di xaar te xam xamaguñu sax lay tijjeeku vraiment donc les photographes ñu ngi xaar vraiment seen appui ci l' état du Sénégal hmm. waaw. tout à fait parce que tey si tey la preuve mooy ñun def nañ ay interview def nañ ay reportages ñoo ko monté suñu bopp avec des logiciels utilisés par la télévision donc tey si tey on est prêt. pour vraiment liggéey ci ay structures. Hmm. liggéey ci télévision yi. liggéey avec les institutions. parce que Sup Info nous a bien formés par monsieur Bassir Bachir Mbengue def nañ ko maîtriser nañ ko.